yes waxal ma yaay na ma sànni ñaan maam dolli ñaan rek ma gudd fan ku judd gis dëgg du dund fenn bëgg yàlla ba ñun tu amul fenn mën a tekkee tax yoon bi tar maag élimi nag duñu mën a far taalibe bambala ak saa wër na sëñ abdou karim seera faal bandi dëgg day yore goon wala bandi dëgg day bëri jiis sama dugg jel seen bénéfice génn te yàqate marché bi li nekkatul reewande dama dof dama génn kaso rek jaari fan ku dégg-dégg na ma xob fa ma leb sa carrière si ñaari fan li nekkatul sampo door si moo lekku ma dama doof